noo ngi sant yàlla di jullit yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu dolli ko xewal ak mujj moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba dinay tukki mbokk yi ci daje bi sëriñ muntaxa mujj dajeeg ñuy yëngu ci xam-xam dafa am kàddu gu mu fa yëkkati te kàddu ga làmboo ñeenti tomb te moom sëñ bi itam sàkku ci ña fa teewoon ñu jottali ko kàddu yooyu ba nit ñi jot ba fexe itam ba saafara mën a am ca la jàmbat ci kàddu yooyee ñeenti tomb ya nag ñooy bi ci njëkk mooy dafa wax ne diine ji woyof na ne itam xel yi wére dinañ ne it nos bi bi ñu nos yoon wi itam desees na ko sàmm ñeenteel bi nag mooy ne fi ñuy jëlee alal ak fi ñu koy dugal war nañ koy gën di seet bi muy wax woyofug diine ji dafa wax ne nit ki li fekk diine notul ci ay yitteem muy ëppul ci ay yitteem li fekk yittey nit ki diine ëpp ca rek kon diineem woyof na te foog naa ñun ñëpp xam nanu ne ñu bari ci noonu yittey àddina leen jiital doo caa teg yittey àllaaxira am na ñooñ sax daanaka duñ ca boole yittey àllaaxira àddina rek lañ def seen yitte jëpp diine nag te diine mooy am diine li ñuy wax am diine nag ni nu ko xamee ay daraja yu wuute la dañoo ëppante di dana am diine am ku am diine ku ko ëppale ak ku ko ëppale ku ko ëppale waaye daraja ja ca gëna néew nga xam ne moom jullit bu nekk ko war a am jullit bu nekk war na faa àgg mooy di def farata yi di bàyyi yi yàlla araama loolu moom mooy li nga xam ne mooy daraja ji gën néew fa la nit war a tàmbalee nag di doora jéem a jëm kaw ku yam foofu nag dañ koy jàppe ci ñu digg doomuñu ñu digg doomu waaye ñi nga xam ne daal manes laa wax ne li wolof di wax naan ca lañ bët set mooy baax nañ waaye ca lañ yem daraja yi gën kawe nag daraja yooye ñoom ña jiitu ñooy tey rawante te nag daraja yooyee fañ koy sàkkoo mooy la dul farata lii farata moom ku ci yam baax na rek ku bëgg gën a baax nag da koy weesu bërëb bi yaatu bi ñuy sàkkoo am daraja yu kawe ya mooy li ñuy tudde ay naafila naafila mooy lépp lu baax lu dul farata rek te muy lu baree bari nag te ay xeet yu bari xeet wu ci nekk rek nit mën na caa jaar ba bokk ci ñu ëpp diine loolu yàlla ko wax ci alxuraanul karim moo wax ne jullit ñi am na ci ñooñ dañoo tooñ seen bopp ñu tooñ seen bopp mooy ñooñ danañ bàyyi lu leen digal wala ñuy def luñu leen tere ñooñ dañoo tooñ seen bopp mu ne am na ci nag ñoo xam ne dañoo digg doomu mooy ñay def lañ leen digal muy farata di bàyyi lañ leen tereet muy lu araam yam ca mu ne nag am na ñoo xam ne nag ñooy ña jiitu ña jiitu mooy ña foofa di rawante ci ay ay naafila ni ko yonte bi waxe ci beneen xadis ne boo xam ne yàlla la cee nettali ay waxam ne ci naafile yi la nit di demee ba àgg ci bokk ci ay gaayam bokk ci ay gaayam ba lu mu bëgg yàlla fekk ko ci sëriñ bu mag bii nag di Cheikhul Xadim radiallahu anhu wa arda dundam gépp ci jaamu yàlla rek la ko def amut leneen lum ci boole kon mooy yitteem jëpp kon yitte àllaaxira rek la woon jaamu yàlla nag dafa yaatu dafa yaatu du rek julli ak woor waaye maanaamu yaatu mi mi jaamu yàlla am te mooy lépp looy def rek nga dëppale ko ak na ko yàlla bëggee sëñ bu mag bi ci loolu rek la jeexal ak dundam gépp Cheikh Sidi Cheikh Sidiya Baba loolu la ko seereel dafa wax ne sëñ bi daal bu amee sikk sikkam weesuwul jaamu yàlla ak di jariñ nit ñi suba ak ngoon loolu mooy sikkam loolu foog naa aw tagg bu kawe kawe la koo ne sikkam mooy loolu loolu tagg bu kawe la sëñ Muntaxa nag li mu seetlu ci woyofug diine ji foog nan na li ko waral déggiin wu am njuumte la wu ñenn ci nun dañ koo am mooy ñenn ci nun danoo am déggiin dañoo am ay déggiin yooyu dafa njuumte da caa am am na ci nun ñoo xam ne dañoo jàpp ne am diine dafa dàqanteeg doyloo sëñ bi mooy bu nit dee am diine sax da daanaka dañu jàpp ne dafa doyloo wut sëñ bi bu dee day tënku ci diine di góor góorlu di fexe ba di def liñ ko digal di moytu liñ ko tere di bari naa naafila yu mel noonu sax am na ñooñu dañ ko jàppee ñàkk a bi loolu dégg yi nuwu njuumte am na ci biir am na ñoo xam ne it dañoo jàpp ne li ñuy tuddee xaqiiqa ak li ñuy tuddee charia dañuy yaari biir yu sequl dara te ñoom ñu ne ñoom ci waa xaqiiqa lañ bokk ba tax kon charia duñ ko jox yitte ju am solo am na ñoo xam ne it ñoom dañoo topp seen njort dañoo topp seen njort topp seen njort sëñ bi moo ko tuddee noonu sëñ bi moo ne topp njort ak wéye njort mooy jàpp ne la yàlla dig ña ko topp mën nga caa am te defoo lam digle topp njort ak wéye jàpp ne la yàlla tëkkoo ña koy mooy mën nga caa mucc te di ko moy kon dafa am ñu topp seen njort ñoom jàpp na ñoom àjjana ak mucc xas nañ ko am ba noppi xas nañ ko am ba noppi kon nag ñu sonal seen bopp ci di tënku ci ay ndigal yooyu yépp ay njuumte la yooyu ñenn ci nun dañ ko dañ koo am moo yóbbu ñenn ci nun itam ñu woyofal diine li ñuy wax am diine duñ ko def waaye li ñu mën a tudde ñàkk diine moo ne ca ñoom noonu ñaan yàlla mu wërsëgal nu ba nu dégg diine ndax dégg gi mooy tax nu man koo jëfe ñu dégg ko dëgg-dëgg te itam man cee tënku dëgg-dëgg noonu koy ñaan mu defal ñu àdduna ko alaxira mu nu ci sawara sàmmal sunu gëm ubbil nu bunt yu yëpp soom ci yoonu njub may nu fan gudd ak wér ak ci rafet